waaw renouvellement parc bi li ñu ci wax euh, mooy euh, bu ñu ko def renouvellement mu nekk vrai renouvellement ñu bañ koo cof te dugg ba ci biir ba ba dig ci biir maanaam oto bi bu génnee ñu génnee ko ci circuit bi bu ñu ko gisati mais jënd ja euh, na nga ne renouveler da nga ko renouveler Dakar mu dem dawi Kaolack wala da nga koy renouveler Dakar mu dem dawi Ziguinchor ça ne sert à rien renouveler renouveler dara ci ci pollution day continuer polluer ci accident li xew gis ngeen ko yàggul dara oto bi day nekk kenkaay yëre buy daw. donc bu ci accident bu ndaw amee ñëpp de alors également donc il faut que l' état foofu mu am fulla ne day renouveler te oto yi ñuy génne ci renouvellement ñu nekk oto yoo xam ne ñu ngi sànni carrément xool comme ni Ablaye Wade doon proposé dugal ko géej mu nekk ñu euh, yar ci ay crevettes maa leneen mais vraiment que mu nekk hors circuit yu ñu oto yu baax yoo xam ne ci nit ñi dugg loolu mooy tax ñi nekk en bonne santé mooy tax également suñu suñu parc automobile nekk en bonne santé. ki euh, affaire carburant la woon maanaam euh, gasoil beeg essence bi ñuy def ci suñu oto yi ñuy jaay oto yu bees sax nga jaay ko. Euh, def ci def ci carburant ba nga xam ne carburant boobu nekkul ci aux normes nga dem ñaari at wala sax léeg benn at sa moteur am problème oto boo xam ne léeg-léeg cent millions nga ko jëlee wala quatre-vingts loolu véritablement dafay nekk loo xam ne lu diis la moo tax ñu loolu tam il faut ñu waxtaanee ko ba pare terminer nag ci véhicule électrique maanaam oto yoo xam ne courant moo leen di dawal parce que boo demee tey bitim réew. Euh, ci ëpp ci dëkk bitim réew yi ñu ngi commencé sax di dawal oto yooyu maanaam oto bi dañ koy branché ci courant ci ba nga sa batterie fees dell nga dem sa yoon. waaw ñoom nag am nañu quelques jafe-jafe yu ñu war a régler maanaam mooy ñaata kilomètres la oto bi war a mën a daw actuellement nee nañu ba 600 kilomètres am nañ ko waaye dañu bëgg a dem au delà moo tax euh, nekk gul loo xam ne du siiw la waaye ñun tamit duñu toog rek ba ñu ne këtt ne jonn oto yaa ngi nii ñuy door xalaat ci loolu tax ñu ne nit ñi. nañ leen woo ñu teg débat bi waxtaan ci loolu xool naka ñun Sénégal la ñu mën a xalaatee ci loolu aussi am nañ ay usine de montage ñun CCBM am nañ usine de montage automobile